quartier sankiya di dekk bu nekk ci biir commune bu Mbacké bol bu yagu dara nak amna ay ndaw yu jog di ñaawlu doxalinu maire bi di galoba. Ba ginnaaw bi ñu daanalee am yeneen ndaw yu dëkk ca boobale diwan jog di len weddi ñom ne neen Ba ma nga indi ndox ma ma nga yaatal dekk ba ma nga jël mbalin ma tayit nak ma nga yokk courant ba mom ndjay nak yor sen nak na lu tolok ñenti kilomètre ci courant bi ñu ndjay ci micro Sen set asalaamaaleykum yéen waa Senghane yi ak wa Mbacké man la Talla Ndiaye nekk ci man santaan yi ci laa nekk mais Gallo Ba li fi yokk ci courant bi ay kilomètres la poto yaa nga nekk dégg nga lamp yi lakkoon yëpp moo ko changé ndox mi bari na am na nag koñ yum yéegul mais wax lépp maanaam gis naa ne moom loolu du nekk sànc bu bees bii ah ma ngi ko jëlee Sadio andi ko fii pour ndox mu neex mi pour lépp sancaan yi gis ci seen bopp tax ñun daal liñ gis ñun bi Galo toogee léegi ñun ñoo ngi gis ci suñu bopp ci Galo ci sancaan yi nag ñoom ñoo ñee wax nag loolu ñoom la concerné mhm. ñoom ñu ne ñoom ñu ne fii amul ndox amul courant amul lenn loo xamante ne bi maire bi def na ko ndax loolu da nga koy weddi wala da koy dëggal loolu dama koy weddi ndax ku ñëw fii yéen ñi fi ñëw nii yéen a ngi jàkkaarloo courant bi nii yéen a ngi jàkkaarloog poto yi poto yi fi kii nii 4 kilomètres yoo xamante ni yoo xamante ni ay nit dëkkagu fa Gallo Ba dafay yóbbu courant bi loolu loolu loolu leer na ñëpp waaw. poste de santé bi nag poste de sante bi ñu wax ne rek daanaka fi ñu tontee maire bi defatu fa dara maanaam ñi fi nekk daal daanaka sax feebar faju doon na ay jafe-jafe ndax loolu tamit lu dëgg la. poste de sante bi ñoom ñoo ñu doon wax loolu ñoom ñoo yor comité bi kon lu fa sikk ñoom la waaw. Mhm. Mhm. Euh, am ngeen kenn koo xam ne moo ngi fa rek maire di Alioune Penda Diouf ndax moom moo ngi dugal loxoom bu baax a baax ci gox bi wala daf leen a seetaan ba tey. Alioune Penda Diouf moom kooku moom mustu seetaan ba poste bu ubbeegut ba léegi mustu see loxaamang ci biir même dëkk bi loxaamang ci biir Aliou Diouf musu ñoo seetaan waa sanc ci benn yoon wasalaam. kii nga xam ne moom moo di Mbacke Niang dëkk ci quartier yooyu di sancaan ya moom nag farandoo Abdou Mbacke Ndaw la moom nag ma ngay rafetlu anam bi nga xam ne moom la galo ba di gérer dëkk boobu di sancaan ya ndaxte kat nee na ma ngay indi ndox ma moom it ma nga yokk courant ba te it nag poste de sante boobu nag ñi nga xam ne daal ñoo doon tuumaal maire bii di galo ba ñoom ñoo ko yor ñu déglu Mbacke Niang ci micro seen set poste de bi wala bokk marché bi dafa am jafe-jafe ndox mi tamit nee na daal kàcc euh, sancaan yi dafa manqué ndox maire bi daf leen a seetaan ndax loolu tamit yow da koy dëggal euh, ñi sant yàlla julli ci bi sallallahu taala wa sallam man Mbacke Niang la sant Daaru Salaam maa ngi nuyu ñu fi ne ñëpp gannaaw loolu bi ma ko déggee dama am kersa quoi dama am kersa parce que man bëgguma doomu aadama buy toroxal boppam te toroxal sa bopp mënut a weesu nga di ñaan yàlla te xas sa bopp mënul weesu loolu parce que bu li ñuy wax ne amu fi dañuy wax rek ba bay jub bay jub ko fi ci wax loolu xanaa néewul ci sànc yi télé bi Ndaw moo ko jëloon foofu moo ko yemale foofu man amul courant fii mënoo fee génne fenn foo amul courant fépp am courant li ñu wax mooy nañ ñaan yàlla galaba dollil ñu ko ba ci kaw ba nga xam ne koñ ñi doon jooy pour àggu fa pour mu àgg fa te loolu bi ko déggee am na ay jéego bi la wax na ci waaye man dana am lu ma ci leeral parce que Mbàkke ban ban ñëwee ba léegi ñun mosuñu fee gis ndox mu neex te moo doonoon suñu yitte ñu koy kaas suñu toll galab bi ñëwee te ooyu ñëpp gis nañ ko suule ne ko Sadio ba Mbàkke nga xam ne lu néew moo jot pour mu tàkk kon ñoom bu leen dara ci àdduna jaral ñu jaay seen góor wala dañ leen wax loolu tax ñuy wax loo xam ne àndul ak li fi nekk loolu moom naqari nañu lool te ñu ñi ci dëkk bi ñenn كوني خامن المارس جرسير فيديو الأمن يخامن أمني كلاس تسيري ولمين تدوس من كفوم جروم تناي بني وانا نجوا تابي كيان كاتي كمان نتاخ دوس بو مارس بو خامن نجوا تابي كيان تدفع تاي تدوس يبغى نسوي يوم مني تدوس يوم نجوا من ميري وقتي مارس بلا عبد الله كندا وسان فورس سان لا واي بوجو ديجي نخاري نمالول بار سنتو بار سان جيبون بير نان فاك بان خامن كون لين يفتح تكني نيو فك نجرا نين تنكو فات تكني ليجي بس كاي ميري وقتي دوكو جيرن تريكو سوندا اندا يا كان نجرا جافا نن باي لول لول باهم نيت كي بو انتم غوين غورو تي بو دفع دكو خامن نجوا تكني yaakaar mais nit bu la jëfandoo da xam ne jëfandoo waaye doo ci ko ba yaa nga woose journal bi xoolal la nee nga sànni ko ñun ñoo bokk sanci mënuñu koo xar ñaar bu fekkee li ñuy wax am na ci am ñun mu ko am la am parce kenn joxuñ ci lekk kenn joxuñ ci naan lu ñu am ñoo koy liggéeyal suñu bopp nañ bàyyi yàq der gi Fallou Sile bu ma dégg muy wax maa moom ñoo ne woon woon école maam Cheikh ma nekk Abdou Mbacke mu ne Galop jote naa Galop tax mu wër di yàq loolu ab ne nii léegi nekk ñëpp ku la nëbul dëggam kuy ku sa jabar am doom fa ko yóbbu man mii say wax ñaari yoon yëpp sama jabar fa la doom kon ñu ngi sant yàlla bu baax wax li war a wax mooy leen gàlla yàggagu fi mënut a defandoo lépp ñu koy ñaan ambulance bi xam ne Abdou indi ñaan parce ñun politique mën naa ñëw ku ne ànd ak ka waaye terewul ku am ndam sañ ci moo am ndam te adduna tamit noonu lay baaxee noonu lay doxee mhm. comité de santé bi mhm. ñi yor ñi yor hôpital bi mhm. ndax gis ngeen seen bopp yéen ñu ngi sant bu baax a baax wax dëgg yàlla dañ ko daan jooytu amuñu amuñu santé amuñu santé amuñu santé santé am na fi tey ku ci por am problème da ngay jël doo jël fi da ngay doxatu ba santé ba nga dugal fa faju man mii di wax yow bu yàggul ñi ma dañ maa fi am naa fa ñeenti fan dañ ma accueillir ba ma jàpp ne ay wàllu ñoo ne ci hôpital bi ndax accueillir gin ma accueillir ak nit ma doon dalal ñi may wax ñi xam nañ ko kon loolu sant yàlla la moo tax ma nit nit warul toroxal boppam àdduna jëru ko lépp day jeex mais lii ñuy wax nii lépp ay yàq la ak santé mais lépp am na ñu ngi sant nañ ñaan yàlla mu yokk ndax dëgg la dëkk bi day law am na ñoo xam ne xañ na ñëw nañ ci ginnaaw fekk affaire yi mat ba pare ñu war leen a ñaan ñu jàllale leen kon nañ leen ñaan ñu jàllante bàyyi ñëw ñuy wax deuxième ba galaw ay nit ñoo ko fi teg ñoom ñi koy wax ne dañ ko fi ñaari weer dañ koy songu faruñu woon ak moom te nag nit dañuy wax ne ku la ku la yéene dee loo ràgg mu xeeb man mii di wax ak bu suba bu Abdou Mbacke woote waat ko ko nañ waxante dëgg marché moo ko ko fa man ma Abdou Mbacke la jalaana fi lañ ko fekk fi ko bàyyiwaat moom wax nañ ko ko nee dina ci saafara at la fi amagul wala matagul nañ ko muñal ba xam wax dafa teel ñoo ngi dégg leneen tamit euh, ñu ne ñu ne daal galo deful dara sànc yi ndax aide tabaski yi na fii aide yi ñu ngi koy dégg ñun ñii di wax nii yaa ngi dégg jotuñu ci bàyyiwuñu ci xel parce que ñu li ñu mooy dëkk moo ñu intéressé mhm. te ku ko defar defal nga ñu lépp moo tax toppatoo ñu ko wallaahi laasim fii laa ko déggee mhm. parce que ñun intéressé ñu na dëkk bi baax ñëpp mën cee jariñu mhm. waaw loolu rek mooy suñu sëñ bi aide tabaski yi ndax gis nga sa bopp wala waaw aide tabaski yi maa ngeeg liste bi nii quarante nangam personnes yoo xamante aide tabaski yi dugg na ci sancaan yi loolu maa ngeeg bi nii mën naa la koo woon lay nga non moom kay. macha allah wér na. léegi nag yan kaddu ngeen bëggoon a waxta laajuma leen ko wala boog lan ngeen bëggoon a waxta laajuma leen ko. ah moom daal di sant ak gërëm daal fi mu nekk nii. di ko ñaan nag mu dolli ñu. jëlal ñu suñu senes bii. ñu liggéey ñu liggéey. loolu daal fi mu ne lan koy lan lan lan koy dolli. suñu senes baa ngi nii. waaw te war na noo liggéey. ñoo ngi ñaan eh, Gallo Ba. mu jëlal ñu suñu senes bii ñu dem liggéey. waaw loolu daal maa ngi koy ñaan. jaajëf. ginnaaw kàddu yu Mbacke Niang yooyu doxantu nañ ci biir dëkk bi gis nañ fa nag chantier bu mag boo xamante ne bii nag ouvrier yi ña nga ci biir di liggéey ñu daw tuuti gisaat nañ ay poto yoo xamante ne bii poto courant la ma ñu daal di tëral biñ demee bay génn quartier Sancaan ya nag sunu ndeyjoor ñoo ngi fa gis ay tiwo yu mag yu ñuul yoo xamante ne bii tamit teg nañ fa mu mel ni nag liggéey bii nga xam ne maire bii di Gallo Ba am na wala boog mu ngi koy mbébét ci sanc yooyu am nañ ci njott lu rafet ndaxte kat matériel bépp ma nga tege ca boobu la quartier mu nekkoon Youssou Niang fii ci quartier sanc yi ngir seen set